Excellence Monsieur le Président de la République damay wax ci tuuru maireu région Ziguinchor bi ñu lancé pétition bi dama woote ma woo ñi nga xamante ne ci ñun la ñu nekk ku ma ci woo ne ko ah pétition la ñuy la la ñuy mais dafay rafet ñu woo leen laaj leen ndax li ngeen ci xalaat ñu ne ma bu ñu woowati c'est évident muy benn tontu bi deuxième tontu bi nekk woo nga ñu may may ñu tuuti ndax am na ay maire yu ma ne ku ci ne am na ay maire yu ma ne ñu ngi ñëw ma ne leen dafa xat nañ ko yemale ci ni ñu toll la ca des di nañ ko dox donc monsieur excellence monsieur le président ñi fi nekk ñu ngeek yow ñeneen ñaa ngi fëgg ci bunt bi di yoot di ñëw population bi mu ñu lay laajte ndax pënd bee wuri nous avons joué à nous faire peur te fi mu ne nii lépp leer na lépp leer na parce que ñu ngi wax waxu jàmm te yaakaar naa ni bu ñuy wax waxu jàmm kenn gënul xam prix wu ñàkk jàmm ba dab waa Ziguinchor te buñ ko amee tey ginnaaw yàlla mu excellence yow la yow la ndax sa yaru yow la ndax sa baax yow la ndax sa diplomatie de proximité jàmm ji nga am ak dëkk yi ñu wër président loolu yàlla yow la ko may président ñu pare ci loolu ñu ne dañuy wax waxu désenclavement air terre mer bu lim li nga def ci région bi du ñu pare ñu bëgg ko tëjee rek ci perspective ñu ngi ci agropole li war a développer suñu réew ku xool BRT xool TER xool stade yi xool ni lépp looy def danga koy def te fu mu gënee fa mu gën a baaxee te loolu laal yàlla barkeel ko kon nag président xalaatuñu nga dem bañu fi booy dem it duñ ko nangu dinañ la jàpp waa région Ziguinchor nee nañu président yow yowa a ah, yaay suñu candidat boo ko bëggee yow ah, boo ko bañee yow a ah, ñu ngi sa ginnaaw jërëjëf